jërëjëf ay ca door ak l'observateur mi xëy dikke ñun ci xëtam mu njëkk ci image bu xaw a waar bu raglu mi euh, boo gisee lu ñuul daw en tout cas lu ñuul kukk moo xëy nekk ci xët mu njëkk l'observateur lan la yéenekaay bi bëgg wax foofee moo ko ndax dafa am yoo xamante ne ji dégg nañu ko ci diggante imam yi nga xam ne ñoom la ñu jàpp ak waa Boko Haram loolee nag moo tax ñu gën a yokk seen ay jéego leneen loolu it observateur xëy nañu ko wax daal moo di ki nga xamante ne ji moo di imam Aliou Ndao mi ñu jàpp ba ñu koy jëlee ca rëbës di ko yóbbu ca kaso bu ndar ñi mu bàyyi ci rëbës li mu leen wax observateur moo di daf na leen ñaanal leen ma ndax gëw ma ne dinaa dellu si waat ba tey yéenekaay bi xëy ñu xamal ne ambassadeur bu Sénégal fii ci eh, bu France fii ci Sénégal mu di Jean Félix Pagano ak kaaraangeem dañu koy yokk ci tournée bu muy amal ci diwaanu Matam ak Podor mm, foofee observateur topp ko ci la ñu gisee ne moom ambassadeur bi yokk nañu li nga xam ne moo di ak kaaraangeem réew mi quotidien moom i leen mbir mu di la xewoon ca ñu fekkoon ñuy toog di béggee ña ci des nekk ak yooyu ñu ay saay fa métte leen yéenekaay xëy ñu xamal ne kon Ndakaaru muccagul ci mbiri jihadiste yooyu ndax euh, soldats yi français nekk ca Tchad ñoom ñoo dégg waxtaan woo xamante ne ji euh, ci lañ xamee ne kon imam yi ñu jàpp ci Sénégal dañ doon waaj exploser ci réew mi li ñu xamul kay mooy fan lañ ko bëggoon a defee ak kañ lañ koy def mais li leen leer mooy ñoom ñi ngi jëflante ak waa bokk Haram ñi ngi jëflante ak waa AQMI ñi ngi jëflante ak waa Al Qaeda loole yéenekaay bi nañu leer na leen ba moo tax réewum France kon jël seen i matuwaay ca lañ xamee ne Sénégal fi mu nekk nii terroristes yi ñoom la teg ay gët enquête xëy ñëw ñun ci li tax Sénégal war a surveiller ay mbiram lan lan moo war a tax mu war a foogu en tout cas bi yëf yi xewee euh, benn communiqué ne loolee ñoom ñoo ko def te nag yamuñu ca ne képp koo xam ne jug nga ngir di jàppale France yoon bi France jaar nga jaar fa dinañ ko jëflante ak yow te xam na ne Sénégal ak France daanaka benn lañu moo tax enquête ne Sénégal war naa xoolaat boppam ak ni muy doxalee le témoin xëy ci dellu siwaat xëy ñu xamal ne Paris mi ngi jooy ay néewam ci jamono jooj Sénégal gën na geetaru mi ngi gën a blindé wu yéen bi nañu bilan ba ca Paris gën na yokku ne léegi téeméeri doomi aadama ak fanweer ak ñaar yu faatu moom la ñu cay wax fii ci Sénégal nag muy l'armée bi muy police muy gendarmerie ñoom ñëpp jug nañu jatu ne soccet li ñu xaar rek moo di jug leen ñu jógee foofu dali ci laas mi dikk ak ñun eh, ci eh, France ak ni mu nekkee ci defante diggam ak état islamique yéen bi ne nañu France mi ngi ci guerre ndax démb dañoo tiim eh, capitale bu Daesh sànni fa ay bomb ba mu neex leen leen loolee ñu jublu ko ci fayantu quotidien nañu gàtt geen gàttaani geen a koy faj heure puy heure mais euh, li mu bëgg wax fii mooy daal gars yi noppi nañu ngir fayanto ak waa Daesh ay euh, bomb yu ñu leen sànni naka démb yéen kaay bi nañu am na ay am euh, kamikaze yoo xam ñoo xam ne dañ leen teg loxo ndax dañu jege kamikaze yi loolee le quotidien nañu am na foofee ñi nga xamante ni ñoo ca faatu bari nañu libération nañu am na benn doomu Sénégal bu ca faatu mooy soxna si ngeen di gis ci xët mu njëkk journal bi Alima Ndiaye la tudd yéen bi nañu moom ak frère ak sœur heure ñoo demoon ca barab bii di belle équipe doon fa feetu fa la ñu leen fekk fetal ko mu dee la tribune ne ko du moom kese rakkam bu jigéen nit bokk na ci ñi ñu faat foofe ndax bi jaar yi di ñëw ñoo fa nekkoon ci lañ leen fetal ñu daal di fay jaare dee ñu dellu ci libération xooli kadduy Abdoulaye Daouda Diallo ministre intérieur ci suuf noonu nee na yéene ak bëgg-bëggu Macky mooy daal fexe ba fépp foo xamante ne ji ab citoyen nekk na fa ñu euh, wattul ko kaaraangeem moom Macky Sall it libération mi ñuy xamal ne jàppul ci lu bëri ca wet gënale ndax jigéen ñi nga xamante ne ji ñoo bokk ci partem bi ku ci mel ne Marème Badiane mi woote woon daje démb ca Géejawaay bu sukkandikoo ci moom du am mobilisation ndax moom soxna si yéen a kaay nañu kenn gëmu ko ndaje ma ci fiasco la mujj pap mu mujjee sunu lamb mi xëy ak ci xeex bi mu ne moo nar am ci diggante Luc Nicolaï ak Pape Abdou Fall ndax kenn ku nekk yaa ngi def sa kéemtalaay kàttan ngir bëgg moduloo Lo bëreel la yéen a kaay bi nañu Luc dafa bëgg a tëgg combat Modou Lo ak Triple S muy Balla Gaye 2 Pape Abdou Fall bëgg a tëgg combat Modou ak Gris Bordeaux journal bi nañu ñoom ñaar nag jëm nañu ci une guerre sans merci Pape voilà